da ngay reprocher Karim son absence. ah oui. Mmh. parce que j'ai tout fait pour qu'il soit à Dakar xam nga ko je lui ai dit Karim ta place n'est pas à Doha lu la fi téye ñëwal wala ñu jël si la xam nga ne loolu wax naa ko Karim ton armée a besoin du jeu ah, nous nous pouvons recruter les soldats les entraîner et les mettre à l'épreuve mais nous ne pouvons pas recruter en général lire nga ko ça fait une succession de correspondances yoo xam ne xam nga ci dara benn bi dama ko ne léegi li ma la doon wax te doo ko dégg te bu ma koy xeex profondément su ma dënd te mu nekk ci te mën moo ko dindi dinaa mujj wax teg ko sur la place publique da ngay ñëw wala ñu jël si la réew mi yi mënu ko dégg ak lu ko nit ñi bëgg bëgg bëgg ak lu ko Sénégal yi bëgg bëgg bëgg te bëgg bëgg bi teguñu ko fenn rek doomu Ablaye Wade la et puis PDS la mu am ay xale yu ko taxawal très ay jeunes filles jeunes garçons ñi seen sëy tas nañ ci def ci ñu nekk te mënuñu ko gis tu sais ban amertume la les jeunes yi am bi ñu gisu Karim Wade 2024 est-ce que xam nga ko quelle te été leur déception da leen di bàyyi nii te doo leen wax lu leen rassembler lu leen defaraat lu leen indiwaat moom ñu wax ak moom loo xam ne dina ko def sa place ne pas à Doha ak lu mu mënti gagné ci xaalis ci Doha ñëw assurer la gestion du patrimoine politique intellectuel et matériel de son père moo ko gën et c'est sur ça la ko nit ñi waxoon ñi ko jege wax naa leen ñoom ñëpp publiquement ñu ngi taxaw ngénte rajo taxaw deux cent personnes ma ne leen da ko ragal gis nga nit booy ànd ak moom da ngay am ay moment yoo xam ne danga nga koy wax li nga xam te muy dëgg ci yow donc absence su Karim Wade neexul benn nit ci parti bi bu fekkoon ne tey laa wax tey jii bu nangu woon ñëw te amul paas billaahi ñu jël gaal yi jëlu dan nga ko wax ci biir nekk léegi da nga ko ko bëgg a wax ci biir ci kaw penc. non dafa am loo xam ne lii aussi ñi may wax ñu may dégg ah seeti naa leen ñoom amul ku ma terewul ça un an deux ans depuis les communales. parce que sur les communales il y a eu un grand problème man ak ñoom c'est que Karim Wade m'a bëgg nga mener la campagne pour la ville de parce que je connaissais les appréhensions on a eu problème problèmes avant avec Pape Diop ba bi ñuy tàggoo ci législatives yi tout ça mu ngi fi woon bon ba coow yi ñu ci am yëpp donc il fallait quelqu'un ñu ne man recommandé nañ ma sax man man man pour ma dem seeti maa ngi koy soog wax moom waxaguma ko woon mu ngi koy dina ko dégg tey Ablaye Matar Diop grand serigne de dakaar pour lan pour ma dem seeti ko pour que qu'est-ce qu'il pouvait faire pour mobiliser pour être avec moi dans certaines circonstances sur cette affaire la mais xam naa Ablaye suma xarit la suma cousin la suma mbokk la bu ma ko yëkkatee mu jóg. mais xamoon naa ne aussi am na ay doom yoo xam ne yi am na ñu ay envie pour aller à la conquête de Dakar notamment sa fii qui est ma fille qui est venue qui m'a qui m'a parlé ñu wax ma ko deux ans avant avant boobu Amadou Ba bi muy laata dem ci élection locale yi mais wax na ak man parce que dafa yaakaaroon ne mën naa ko dimbali mais xamul woon ne man potentiel candidat la je savais la situation de Diouf Sarr et wax ma jox leen ay propositions yu concrètes ne leen lii boo leen ko defee waxuma ne dinaa gagner mais je joue pour jouer un grand role ba ñu d'accord ci. xam nga après les élections dégguma leen dégguma Karim Rac déglu ma rek Racine Kane laa dégg ma ñëw mu joxe xaalis pour xam lu ma jox 3 millions pour faire la campagne de la ville de Dakar et pendant temps su ma ay xarit yu nekk ci parti bi. ak ma ay rak suma ay mbokk dañ ma ne notamment moo jeune frère daf ma ne grand boo duggee ci lii dañ lay sacrifier